Bravo! dabei. waaw ça va madame da nga bi challenge bi. waaw gis nga noo ko gisee yow. ah mu ngi tàng de dañuy tàng incha allah incha allah madame noo gisee. gañ rek ah, Sénégal jëf. cëgin cëgin waa déggal lii Myriam Dior yaa ngi en direct biir si. waa Myriam yi da nga ñëwul ci Tegin challenge bi. ci lu leer ah ci lu leer. supporté leen yow dem ba jeex. supporté muy taw nga génn sa kër ah, ñëw. sax wax pour si ndox ba agsi. noo gisee yow initiative. non macha allah xale yi dañu def lu doy waar. waaw ma ñëw nag nekk seen maire màggal leen. déggal loolu macha allah man ak maire bu tuuti temps laa. waaw xam naa loolu rek xam naa loolu xam naa loolu. sama doom la ci sama xarit yoon. macha allah macha la photographe li tax nag ñuy wax. waa dégg nga madame Soumaré. waa ah, dégg nga loolu. <laughs> waaw ça va madame def yaa ngi en direct biir femme ji. waaw léegi yow noo gisee Cégin Challenge bi. c'est extraordinaire. waaw initiative bi daal macha allah. initié par moo jami de Twitter. tey mu ex fii muy taw gars yi yëpp waaye kon bu tawul woon kon naka la ñuy tey. su bu fekkee ñun on a muyee la mayo mayo la ñuy toj. incha <laughs>